ñu baal ñi dafa daggoon kon deuxième partie muy ni mi ngi tollon fi yunus bi sallallahu alayhi wasallam mu ni Seydina umar fofu yàlla dafa ni ko boo xoolee aaya bi mi ngi ci suratu tawba aaya 80 yàlla dafa ni ko staafir lahum aw la tastaafir lahum in tastaafir lahum sab'ina marra فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي قوم الفاسقين parce que foofu nee na yonent sallallahu alayhi wa sallam ni ko déet yàlla dafa ni ma nga baalul leen wala nga bañ leen a baalul kon foofu yàlla may na ko latitude par exemple may na ko foofu choix comme mu baalul leen wala mu bañ leen baalu mais en tout cas lu ci mën a am mu ne soo leen baalul woon juróom-ñaar fukki yoon mu ni yàlla du leen baal mukk mukk mukk mukk mukk ngir lan ngir duñu weddi yàlla ngir dañoo weddi yàlla ak yonentam te yàlla du gindi nit nu mu nit ñu di say say moo tax mu ne astaghfiru lahum astaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum sab'ina marra falan yaghfira allahu lahum zalika bi annahum kafaru billahi wa rasulihi wallahu la yahdi qawma fasiqin saa ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yow nga jéggal nga jéggalul leen ak nga bañ leena djeggulul jéggalul ñoo ci yam bo leen doon djeggulul leen sa 70 fois borom bi yàlla subhanahu wa taala du leen djeggal ñun yaron sallallahu alayhi wasallam loolu la tontu sayda omar ni ko ne looloo tax may ki ba pare ci yakana euh bukhari muni yaron nabi sallallahu alayhi wasallam ni nak bu ko leeru ni bu djeggulo 70 fois borom bi yàlla subhanahu wa taala dina ko djeggal kon boba dina ko julle ñaanal ko djeggal sunu borom kon loolo tax mom muy dem diko ko mais ñene ñuni ni sallallahu alayhi wasallam nan lay defé nonu tay borom bi yàlla subhanahu wa taala tere nako ko fële parce que bo xolé aya be 80 mais bo demaatee ba ci aya 84 borom bi yàlla subhanahu wa taala boobu nag daf ko interdire formellement moo tax ñu ni ba lee amee nag si la borom bi yàlla subhanahu wa taala ñëwaat ni yonent bi légui sax nak ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا wa وماتوا وهم فاسقون borom bi yàlla subhanahu wa taala ni ko wala tusalli ala ahadin minhum bii baax nag moom mayetu ko sax nag choix muy def ak bañ a def déedéet waaye nag wala tusalli ala ahadin minhum maata abadan bu ci jullee kenn kenn kenn kenn kenn si ñoom waaye nag wala taqum ala qabrihi bul taxaw sax ci seen xabru innahum kafaru billahi wa rasulihi wa maatu wa hum fasiqun kon ñooñu nafiq yooyu borom bi allah subhanahu wa taala dafa ñëwaat yonent bi ni ko nak cette fois ci nee nga dama la mayon choix pour nga julle nga bañ julle mais bi pas sax da nga leen dul julle ti faf léegi so xolé fofu nonu ñen ñi ni ñu melni nafiq nak lool c'est autre chose parce que nafiq nekkul ko xamanteni ni da nga ko mën xam ludul borom bi allah subhanahu wa taala mo moko xamalon yonent bi ak Udayfa su ma juumul bi nga xam yonent sallallahu alayhi wasallam dak ka daan wax tey buggul woon Xudayfa daan koy eggale ñëpp di ko xam donc juste pour dire que ni ku mel ni euh, imam Bukhari ñenn yi dañ ni ndax li ñu tere yonente sallallahu alayhi wa sallam mu jullee mu bañ a jullee ab ab ab naafiq ndax yonente bi sallallahu alayhi wa kese la ak yeneen jullit yi dañ cee aju ñu mel ni imam Bukhari moom dafa ni waaw jullit yeeg yonente beeg ñëpp la am ñu ni déedéet parce que loolu mën na cause problème parce que yonente bi sallallahu alayhi wa sax moom am na ay naafiq yoo xam moom xamu leen woon ndax alquran ñëw na ci kon ndegam yonent bi sallallahu alayhi wa moom am ñoo xamante ni ay naafiq lañ te xamu leen asantumalaat ñi nga xamante ni ñoom duñu duñu duñu yonent kon boobaa problème day am pour nga définir kan mooy naafiq ku dul naafiq problème daf fay am kon ñu ni loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk ci maanaam yonent bi kese la mais kee bokk comme lu mel ni Ibnu Hazm moom dafa ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kese la mais yeneen jullit yi ñoom mënees nañ leen mënees nañoo jullee ñooñu parce que yonent sallallahu alayhi wa sallam moom bu nit daan génn àdduna ba pare am bor boo xamante ne fayu ko génn àdduna ba pare am bor bu mu fayul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daanu koy jullee mais daan na bàyyi ñeneen ci jullit yi mu autorisé leen ñu jullee ko. kon ndegam loolu am na kon yonent bi sa alayhi wa sallam moom kese la loolu maanaam wàcc ci moom ni ko ni bul jullee naafiq mais nag ñu xam ni que ni naaféq ak ku dul jullit bokkul parce que naaféq yi ñoom dañu ni jullit lañ te sax dañuy pratiquer mais ni nga ko mën a xamee comme ni ko Ibnu Xayyim waxee mooy da doon nekk ñoo xamante ni dañ daan téye kaddu yoo xamante ni kaddu yu tegginu la ñu dégg ko wax ko yonent bi te bu ñëwee wax ko yonent bi yonent bi bu leen laajee sax dañ daan waat ni ñoom waxuñ ko wala ñuy wax wax yoo xamante ni alxuraan day wàcc maanaam ñu doyee daal sax affaire yi mel ni dafa am luñ ci nangoog luñ ci dul nangu Hmm? wala ñoo xamanteni dañuy pratiquer pratique yo xamanteni carrément lay neub mais en réalité ku ko xool da ngay xamni ñi kat wax deug yalla duñ ay duñ duñ duñ duñ ay julit haqqan ay nafiq lañ donc juste pour wax ne que ni pour nga définir nafiq c'est un peu complexe c'est un peu compliqué par rapport ak ki nga xam nak mom du julit ki nga xam nak gëmul yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam kooku jusqu'à preuve contraire amul nit amul bindef mu la meuna a ni ñaanal ko ci bu génnee àdduna dagan na kooku moom gisuma ko léegi nag ku ci nekk ah yaay xool bu fekkee da ngaa gis ni yow lii la yàlla wàcce santaane ko ci àtte waaye yow nag lii ngay def mais kooku yow la concerné yow la engagé mais nag rikkuwaay bul ko def rek tax na nga ni danga koy layal ci loo xamante ni mënoo koo teg fenn fenn fenn fenn fenn fenn parce que wax naa leen ni ñu mel ni sax sama sama ji ñoom Mbàkke Saaxo ñoom moom dañ koo gën a taral sax nag ñoom Mbacké Sakho moom musrik la wax mu ne donc nag musrik gi ñun ñi sax si lañ bokk kon bu dee ñun ñi nga xamante ni sax ñun ñu ngi werante naan jullit la ñun du ñu jullit ñun si lañ bokk kon waxatuma laa ki nga xam ne wax dëgg yàlla moom gëmul yonente bi sallallahu alayhi wa kon nag taxaw di jéem a layal ki nga xam ne gëmul yonente bi sallallahu alayhi wa nii war nga koo mën a kooku wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla dana jafe lool lool lool lool lool lool lool ñu layal ko donc lii lañu waxoon di dinañ ko indi mbokk yi ci leeral euh, ñu xaw jàpp ne nag lépp loo xamante ni leer la borom yàlla subhanahu wa taala lu ci lëndam nag su ñun la suñu gàtt xam-xam euh, suñu euh, ñàkk suñu ñàkk fasaax autant pour waaye tamit suñu suñu suñu suñu suñu suñu maanaam gàttub àlluwa wala sa ñàkkub amul àlluwa waaye ñuy nab nabi rek luñ ci dégg rek wala luñ ñu ci posé comme question dinañ jéem a xool li ci borom bi yàlla subhanahu wa taala wax lu ci yonente bi wax ak borom xam-xam yi suñ ci xamé ñu indi suñ ci xamul ñu dem laaj ko xam tamit mu ñëw indi suñ ci joomé aussi tamit ngeen corriger ñu euh duñu am kersa benn yoon taxaw ni dañoo joom fi li lañ wax te waruñ ko woon wax donc mbokk la woon xarit professeur moom moo tax professeur professeur Yaxya Ñaŋ alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh